jamono ji am na ñoo xam ne kontaan nañu ci bilan Macky Sall bi euh, ñii kontaanuñu donc est-ce que su fekkee ni nga xamante ne ci côté ñi nga xam ne kontaanuñu ci bilan bi est que yow ñàkk kontaante boobu ci bilan Macky Sall bi duñu la ci xaw a boole comme ànd nga ak moom liggéey tuuti. ah xam nga nag ne nit deful dara kenn du ko def boo ko defee nit ñi sax war nañ la wax ni yow waxoo li nga wax ni da xaw na doy waar. yenn saa yi nga gis ko ay activités yoo xam ni mu ngi inauguré fii di inauguré fële. même bu fekkee ni continuité de l'État la li muy inauguré li ci ëpp mu ngi jóge ci yeneen i projet bon yooyu am na am na yeneen ah yu ñu dugal yu ñu dugal par exemple euh, essayer euh, euh, affaire sécurité sociale bi jàppale ay nit ñoo xam seen loxo jotul seen diggu ginnaaw mais bu ma jëlee bilan Macky Sall bi la ma ci wax mooy boolewu ci askan wi pour lijjanti mbir yi moom rek mooy yeewu suba ah xëy na gént na ko ne nii lay demee mu dem defari ko noonu nga wax ko ne ko attention mu ne la sama ngañ nekku ci sama yoon nekku ci j'avance tête baissée gëmm avancé loolu moo fi nekk problème bi gën a metti ci bilan wu Macky Sall boolewu ci acteur yi moom rek la mu xalaat ak ña nekk ca wetam la ñu xalaat rek la doxalee. te yow jàpp nga ni su ci boole woon acteurs yëpp Sénégal dana jëm kanam. mais day neex parce que ñu loolu la ñu xam Sénégal pays du dialogue kii moo ko daan wax sengoor bon neewu ma Senghor lépp baaxoon na mais au moins daan na waxtaan ak nit ñi Abdou Diouf au moins daan na waxtaan ak nit ñi euh, Abdoulaye Wade au moins daan na waxtaan ak nit ñi mais kii nanguwul. te même bu la woowee dela kaay nga waxtaan parce que man gis naa ko ci affaire u euh, parrainage beeg ñoom seen dafa lay woo mais dafa lay woo di la mbëlee xam ne xel ni la ngay wax faalewu ko moom la mu bëgg moom mooy am moom moo xew ci parrainage bi kenn discuté wu ko. Macky li mu bëgg rek moom mooy am aussi tamit dañu seetlu ne euh, professeur dañu seetlu fépp fu mu dem di inauguré euh, mu ngi diggee. yeneen projet yoo xam ne sax te mu ngi nekk ci jogante man lan ngay def ci jàngat boobu tey Macky su demee di inauguré par exemple euh, bi muy dem euh, Gambie jaar na Kaolack euh, def ay promesse ak yeneen i pont ak yeneen ak yeneen ak yeneen foofu ci ci kii bi ñu liir ko fan yi passé maanaam mu ngi ci jongante ci loo xam ne jotagu ci mu ngi diggee leneen lan ban jàngat ngay def ci loolu. mais man principe bi may wax sax mooy lii système bi ni mu bonee au Sénégal. dañu ne propagande kenn du ko def période bii mais moom mu ngi doxantu rek dem fii maa def lii maay ka gën mais loolu ça ne se fait pas ñeneen ñi mënuñu ko donc dafa am rupture dans la légalité le principe d'égalité maanaam ñëpp ñëpp a yem amul ci Sénégal moom mu ngi mu ngi mu ngi def propagande mu ngi naan moo fi gën ndax moom moo def lii moo def la mais c'est pas ça loolu normalul donc mu ngi dem di mu ngi campagne ndax mu ngi promettre naan di diggee dinaa defaat loolu campagne la loi bi daf ko tere wax dëgg yàlla na xool loolu te ba ko na ko ba na ko ba ndax nit ñaa ngi koy xool di ko seetaan ñu mel na ñun dañu toog suñu salon di seetaan télévision di ko gis te di am lañu xalaat te bu ñu ko gisee bu jaarul yoon dañu naan mi lii jaarul yoon mën na li ma gis mooy nit ku nekk dafa am loo war a sàmm man de bëgg naa sàmm kële lan la may xoolee kële lan lay xalaat ci man dama koy sàmm ba ma nekkee xale ba tey nag te dara duma ci génne moo tax ma yaakaar ni yooyu war na ko bàyyi ak di dige bi ak di inauguré ba pare ñu tëj lañu ñu inauguré ne fii ak juróom benn weer rek lañ koy ubbi bon yooyu c'est xam nga liggéey askan gën gis askan bi gis moo ñu gënal ñuy wax di wanewu ah ci loo xam ne askan wi yëgagu ko man foofu tamit euh, ci bilan bi wax naa yaakaar naa ni du du la ñu gënaloon. ok du lu ñu gënaloon ci bilan bi mu nekk professeur professeur Amsatou Sow Sidibé tey ku la xam. xam na leen ku yàgg xeex ci wax wàllu ak ak yelleef euh, tey nag nga gis ne euh, am na ci ay opposants yoo xam ne nii ñu jàpp leen kaso ñi ñu téye leen ñi nga xamante ne nii ñu ñu ñu bloqué leen ci affaire parrainage euh, yow lan ngay wax ci loolu ak lu tax yow ñu ñu retiré sa candidat lu tax nekkuloo candidat ci élection présidentielle yi damay commencer par bu mujj bi nañu libeere xale yi ñu ja yi ñu denc man dama responsable na commission la commission juridique et sociale ci c cinq bi nee nañ ma naa dem saytu affaire xale yi nga xam ni ñu nga kaso ñeneen ñi ñu nga kaso man dem naa dikk démb ànd ak un groupe une délégation pour dem xooli xale yi euh, wax ak ñoom tuuti mais yooyu amul njariñ nañu baax xale yi instauré euh, climat climat ñu ñu yëg ni Sénégal nekkuñu fi pour bund xataal nit ñi pour sonal nit ñi pour tiital nit ñi parce que sénégalais xamul loolu te boo ko xamul doo ko mën a supporter kon ba ku ci nekk ci ñun na xam la muy def xale yi nañ leen génnee seen place du foofu nañ leen bàyyi ñu dem lan la boo meree mën nga manifester nga bañ a yàq nag bañ a gaañ mais mën nga manifester surtout que xale yi man d'accorduma ci condition yi ñu leen jëlee yóbbu leen dikk quatre heures du matin cinq heures du kenn du dem yee nit di ko fa jëlee kenn du ko def kenn amul droit def ko premièrement deuxièmement ñoom dañu am problème ak nit mais ñu jàpp leen ñoom yóbbu leen luñ ci xam lu tax ñuy jël leen tax te dara leerul ensuite ka demoon buntu euh, euh, euh, bokk gis-gis ba di leen photographier lu tax mu ñëw fa du loolu may provocation ñoom ñu nga buntu bokk gis-gis parce que foofu dafa amoon conférence de presse ñu bëgg dem di leen fa photo mais yooyu provocation lan la luñ fay wuti nañu bàyyi nit ñi tranquille xale yooyu mani nañ leen génne seen place du foofu nañ leen fëggee génne jàmm ne ñooy. seen place du foofu nga dégg kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko moom am euh, Amsatou Sow Sidibé am na lu ma la laaj ci parrainage bi lan moo tax jàlloo ci parrainage bi. waaw li ma ja li tax jàlluma ci parrainage bi man au bi rek dama ñëw parce que ba ma ñëw sama mandataire laa àndal ñoo yóbbu fukki carton ak jigéen carton laa wax ak juróom fukki carton ak juróom ay signature pour quatorze régions yi ak diaspora ñu yóbbu ko teg ko yóbbaale benn clé bi ñoom ñu ne mandataire bi ba mu fa delloo ñaari fan après ne yéen seen clé bi kenn mënu ko woon a liir mënuñoo xam lan moo nekk ci biir mënuñu ko liir mu jaaxal ma ma ni bon loolu am na naa nañu delloowaat nañu defaraat ubbi clé bi xool ban problème technique la am ñu régler ko te yéen te yéen clé bi bi ngeen ko yóbbu fu kel kii euh, testé ngeen ko ba mu marché. man xam nga man euh, mënuma rek la lépp man mënuma di jël ay cle di ko arrangé dama ko confié woon ñu ma ko defaral yóbbul nañ ma cle bi mais cle USB tout le temps day am problème bu amee problème nga duggaat ci sa ordinateur nga jël données yi joxewaat ñu ne defaraat nañ ko ba defaraat soixante mille signature joxe ko mais booba ba tey xooluñu suñu signature te dégg naa ñuy wax ci mbedd mi naan dama doon saboter pour yàq logiciel bi man ñoom mënoon naa leen porter plainte ah, parce que dañuy def accusation diffamation bu grave bu ma xamoon kan la mën naa porter plainte contre X parce que loolu ñaaw la ñoom li ñu waroon def mooy ne soxna si indi na ay carton signature yaa ngi nii kon bokk clé bi dafa am problème nañ ko woo mu indi beneen clé mais ba ma defee recours joxe beneen clé ba tey ji nii nii nii artu ñu ci tontu ñu ci ñu ma dara ñaareel bi moo di ne ñu ne euh, sama carte sama certificat de nationalité dafa am njuumte ci sama turu yaay parce que man sama extrait de naissance sama turu yaay mattu Diaw moo ci nekk ma soxla woon certificat de nationalité ba ma ko soxlaa ma dem palais de de justice laaj leen jox leen sama extrait de naissance waajur bu góor sama papa moom yaayam mu ngi tuddoon Fatou Anne bi ñu gisee erreur bi ci certificat de nationalité bi man dell na tribunal pour ñu rectifier ma ko loolu erreur rek la yoo xam ne dañ koy rectifier facilement ñoom yore nañu sama document yépp mais dañu grève euh, euh, syndicat justice dañu grève fan yooyu yépp mën ñu fexe ba corrigeel ma ko rectifieel ma beneen poñ bi mooy affaire caution bi man maa lànkoon ne duma joxe caution xam nga lu tax code électoral bi kenn xamul lan la ñu ne léegi parenage parrainage mooy seet tax ñu xam ndax yow mën nga nekk candidat waxuñu ndax mën nga nekk président ndax mën nga déposer après dossier pour nekk candidat mais léegi dañ lay naan indil say parrain dugalaal ca caution mais caution looy cautionné candidature ngay cautionné nekk goo candidat tant que nekk goo candidat naka lañ lay laajee caution kon boog parenage bi benn yëf la déposé dossier pour être candidat beneen yëf la man na juriste la te am na yoo xam ne dafa may jaaxal code électoral bi daal dañ ko patam-patamee dafa am ay problème yu grave yoo xam ne il faut ñu corriger ko yow nga jàpp ne daal euh, parrainage bi système la pour bloquer candidat yi. ah waaw waaw système la pour bloquer candidat yi ndax nee nañu ci élection législative yi candidat yi dañu bare woon mais candidat yi la ci ëpp ñoom ñoo leen fa samp jox leen xaalis jox leen lépp ne leen dem leen nekk candidat comme ñu ne candidat yi dañuy bare ñu indi lu mel na parenage pour bloquer rek la te bloquer na nit ñi. ñoom yor nañu seen liste bu bopp bu bopp bu boo xam ñoo xam ndax neewoon nañu du ñu ëpp juróomi candidat te dafa xaw ma euh, euh, euh, xaw ma nu mu demee mais le premier ministre waxoon ministre de la justice bamtuwaat ko moo am juróomi candidat lañu kon boog ñoom dañu def espèce su concours daan ne ñun lii ci place lañu am dina ñu seet ñan la ñuy dugal ci place yooyu muy juróom yooyu jeex na. beneen aussi tamit mooy sa gis-gis ci électoral yi amul benn femme en tant que jigéen yàgg xeex posé woon candidature am ci 2012 ren ñu gis la nga sant ak yooyu saa di dire nag ban jàngat ngay indi nga indi ci loolu. moom dafa jaaxal jaaxal nit ñi xam naa jaaxal na waa Sénégal mais jaaxal na waa bitim réew. bitim réew fu nekk lañ ñuy woowee surtout journalist di ñu laaj mais Sénégal gi nga xam dañu defoo ni dafa avancé ci mbirum euh, jël ji euh, euh, boole jigéen ci mbiri ni mu delloo ginnaaw man leen di lii moo xew list bii di génn de benn jigéen du ci bokk te ñun dañoo xeex ay yàgg na indi nañ fi loi sur la parité assemblée nationale jigéen yaa nga fa di dogal léegi 2012 candidat yu jëkk yi dem nañu yu jigéen dem nañu ci élection yi tey nag ren dara ma yaakaar ni dellu ginnaaw la bu méttee métti non seulement sax ci affaire u waxatuma sax mbirum démocratie mais ci yaakaar pour Sénégal mais sénégalais yi dama bëgg ñu ubbi seen bët condition yi demuñu fenn dañuy def élection éliraat ay nit mais yaakaar jëm ca kanam man samay sama yaakaar dafa tas ci yëf yi aw ma ci yaakaar. sa yaakaar dafa tas ci yëf yi. xam nga lu tax aw ma ci yaakaar solo jigéen ñoom tant que sénégalais comprendrewul ni bu jigéen dugalul loxam ci yëf yi du dem du du ñu dem ndax jigéen fépp muy famille bi d'abord moom mooy diggu ginnaaw famille. loolu la ñuy wax colonne vertébrale te famille li ñuy wax cellule de base maanaam mooy Euh, euh, groupe bi jëkk ci biir société bi su fekkee ni jigéen ñi dugguñu fa ñuy dogal mais dogal yi du mën dem fenn loolu lañu war a xam xam ni jigéen dafa war a dugal loxoom ci mbir yi bu ñu bëggee Sénégal gën a neex bu fekkee ni dañu bëgg xale yi am liggéey il faut que jigéen dugal seen loxo jigéen ñi am sutura nekk ci sutura mën a jàppale borom kër yi ak càmmiñ yi il faut seen loxo yi dugg ci moom daal suñu ko jàppee moom professeur Amsatou Sow Sidibé mu ngi ñaawlu li nga xamante ne ni moom la ñu def maanaam jël jigéen yëpp euh, écarté leen ci liste bi waaye Sénégal est-ce que am nañu culture euh, jël jigéen fal ko actuellement nii yow sa gis-gis ci jàngat ci loolu. ñu bare amuñu culture bi te man li a naqadi mooy boo waxee ñu ne l'islam mais ñuy wax loolu waaye nañu dem gëstu nañu xool lan la suñu borom wax ci jigéen. gis nga islam dafa juddu ci société boo xam ne bu jigéen daan juddu dañ koy rey duñ ko sax rey dañ koy suul suñu borom ñëw ne mais lu ngeen di def nii xanaa xamu leen ni man kii dama ko fonk bu leen ko rayati jox leen ko ay axam ak ay yeleefam te dinaa ko jox lu ëpp sax ndax jigéen yi par exemple ci mbirum ndono euh, dañu ne góor gi mooy jël genn euh, euh, ñaa ñaari paar moom mu jël benn paar mais xam nga lu ñu wax jigéen ji amul dara lu ko war baayam moo koy toppatoo càmminam moo koy toppatoo borom këram moo koy toppatoo léegi bu fekkee moo amul benn charge amul benn dépense ñu jël genn wàll ga teg ko muy jënd ay yéreem yu rafet ay lamam yu rafet dem toppatoo ay waajuram ak ñoom seen ak ñoom seen esprit bi lañu comprendre suñu borom moo wekk jigéen moo ko teg ca kaw mais société bi comprendreul tous ci yëf bi yaakaar ni jigéen dafa war a nekk ci ginnaaw mais jigéen bu nekkee ci ginnaaw problème la nit la suñu borom wekk ko te société bi bu ci jigéen dugalul loxoom mais fu ñu jëm te boo gisee société musulmane yi ñi ci ñu bare ñu am solo ci société musulmane islamique ay jigéen lañu woon soxna Khadija tey soxna Xajara man dama koy cité parce que kenn mënul dem Màkka te doo def Safa wa Marwa te kenn du dem màkk te doo jël ca zam-zam ba naan ci sangu ci indaale ci mu diis ba dee nga dugal ci avion. te loolu yëpp jigéen ñee ko waral. waaw buñ la <laughs> dégg loolu am na solo mais buñ la seetloo euh, ci sa gis-gis ci sa wax-wax daal ci sa sa ci ci sa boobu ba léegi ci waxtaan gi jotaay bi euh, jàpp nañ ni euh, yaa ngi ci opposition bi te jàpp du jàpp sax franchement yaa ngi ci opposition bi ñu lay laaj kan ngay àndal kan ngay fas yéene àndal jàppale ci deuxième ci ci yi. di ngeen ci xam dara déglu leen ma rek di ngeen ci xam dara pour la moment maa ngi réfléchir maa ngi gëstu maa ngi waxtaan ak samay samay militant samay sympathisant euh, di ngeen ci xam dara incha allah rabbi mais bëggoon nañu am exclusivité bi kenn woowu la ci opposant yi ci candidat yi ñuy jàll yëpp ki amul kenn ku la woo ne la jàppale ma. ma kenn dina ma romb te doo woo. <laughs> mënul am ñoo euh, ñëpp bëgg nañu ma ànd ak ñoom euh, xam ngeen lu tax jom fulla fayda bëgg sa réew waaw loolu moom euh, yàgg liggéeyal askan wi yéene askan wi loolu moom moo tax xam nga élection présidentielle daw euh, euh, euh, ñëpp dañuy bëgg intéressé wu rek ci boo mais dinaa leen wax sama sama kii. dina dina dinañu wax xam naa di d'ici peu de temps wala d'ici quelque jour wala semaine parce que ñu ngi ci wàccaayu élection yi comme ça moom mu ñu wax kan lay jàppale moom la ñu feggoon ak waxtaan ci mais dafa am ñaari question yu mu la bëgg a laaj mooy Amsatou Sow Sidibé est-ce que mën nañu xaar ëllëg mu transhumé. man bëgguma affaire transhumance wax bi sax xam nga lu tax. bàyyi ma yi ñooy transhumé donc euh, le mot transhumance ça ne m'intéresse pas. ok mais un jour daal mën nañu xaar Amsatou Sow Sidibé euh, ñu bokk ci gouvernement bi su fekkee Macky na gagné na élection yi. man ëllëg fépp fu ma war a mën a toog pour liggéey askan wi dinaa fa toog bu fekkee ni yàlla tudd na ko amuma ci problème man askan wi moo ma intéressé. askan bi moom a intéressé ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax moom la ñu sekkoon ak waxtaan ji moom Amsatou Sow Sidibé di jigéen ju jàmbaar goo xamante ne ni yàgg xeex ak ak yelle fu nekk ci réew mi ak bitim réew ñu koy sant bu baax a baax ci disponibilité bi nga xamante ne ni defal nañu ko ci période élection la ñu nekk donc temps amul jot yombul mais gis nañ la carrément franchement fekk nañ foo ko fii mu ngi ci jàmm mu ngi ci salaam et puis ñu ko fekkee sax xam nga macha allah euh, comme comme comme comme ni ngeen ko faral di gisee rek xam nga ni mu mel moom toujours toujours toujours moom la professeur la mais léegi sa kàddu gu mujj mujj ci ci Sénégal lank nga gisee réew mi actuellement nii est que kontaan nga ci système bi booba léegi est lan moo la naqari lan lañu war a coppite ci réew mi. nañu ku nekk na respecté moroomam te nañu respecté askan wi euh, góorgóorlu liggéey ndax suñu Sénégal rek lañu am di ñaan nag jàmm ju bari ci réew mi parce que ci la jàmm yépp xecc voilà